ndax deful fukki fan rek ñu amone suma mam buñ doon indi fi diko taxaw man ma ñëwoon ci kérok gisé nañ waxtaan nañ waaw ba ba ba safonté nañ lu bari kérok kon dañuy sant suñu borom euh, ci xam gi ñu ko xamoon ak dundu gi ñu dund ak mom ak euh, tawfiix gi suñu borom defal ñu mu nekk africain nekk sénégalais bokku ci yoonu mourid loolu dañ ci sant suñu borom bu wér a wér donc di ñaan suñu borom mu tass ñu ci barkem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 digënté bi mu daan jaabante buñ ko xamoon xeyna buntam dootul feex ba dootu ko té te ko gënaloon lépp ci kaw suuf kon kanam la jëm ñukoy ñuy sant suñu borom daal di ko sant la yalla di wax ne sak la won sak la c'est une présence qui rassure présence la bu doon rassuré waye jógu fi tay la fi gëna nek tay tey la ñuy ak mom te inshallah taala dinañ ci xam dara